Assalamu asalaamaaleykum mbokku internet yi nga xamné yéne ngi bayyi xel sen chaîne bi di Texcom TV Bamba tay nak ñu ngi fi ci commune Nguéniène plus précisément Nianda ñu doon fi téwé assemblée générale bu am solo ñiko doon taxawal nak nek jeunesse la grande coalition walu Sénégal su ngeen ñu topé nak di ngeen ci gëna am lu leer. Bonjour euh, je m'appelle euh, monsieur André Ndour euh, j'habite ici à Nianda je suis aussi le chargé de la communication et de l'information de monsieur Boucar Diouf. Voilà, donc euh, aujourd'hui nous sommes euh, ici en Ndianda, au bâtiment La République. Euh, nous avons tenu une assemblée générale composé de toute la jeunesse de la commune de euh, juste dans le cadre de la préparation des, des, échéances locales à venir ici dans la commune de Nous, en tant que jeunes, nous sommes aussi conscients que euh, pour aller en campagne, il faut vraiment euh, le dynamisme de la, de la jeunesse, cause pour laquelle nous nous sommes mobilisés aujourd'hui ici pour installer un bureau, voilà, donc pour mieux préparer la jeunesse parce que nous voyons que parmi les sept candidats qui se sont prononcés euh, pour diriger la commune de il y a un seul candidat unique, compétent, capable de tenir ou d'amener des changements au niveau de cette, euh, commune, qui est M. Bougardiouf. Parce qu'il euh, est un homme social, il est un homme vraiment, un homme de développement, un digne fils aussi du Sénégal, mais surtout un digne fils de la commune de Voilà. Donc euh, je lance un appel. Euh, je remercie d'abord la jeunesse parce qu'il y a vraiment la représentativité de la commune. Euh, tous les villages de la commune, les 25 villages de la commune ont été représentés ici par la jeunesse. Donc ils se sont tous engagés vraiment pour être avec Boukar accompagner Boukar jusqu'au soir du 23 janvier à la siège de la mairie d'Anguignan. Voilà, je lance un appel aussi à tous les militants qui sont aussi au niveau de la commune d'ouvrir bien les yeux et regarder vraiment là où euh, se trouve le bon choix. Parce qu'il y a ceux qui viennent ici avec leur, euh, leur véhicule, euh, de leur argent, ils ont fait des prêts bancaires juste pour venir corrompre notre population, corrompre nos mamans et papas. Donc nous, en tant que jeunes, nous disons non à cette euh, corruption. Vraiment, nous sommes ici et nous savons que M. Bougardiouf, euh, né ici de la commune, il n'est jamais, jamais sorti pour aller chercher autre chose ailleurs. Donc il est né d'ici, il est de fils, euh, papa cultivateur, maman cultivateur. Donc ce qu'il croit en lui, c'est l'agriculture et l'élevage. Voilà, nous savons bel et bien que si on le confie, cette commune, il va en apporter des, bons résultats. Il va éradiquer ce fléau qui est en train de nous, décarcasser dans cette commune. Voilà, donc je lance un appel à la jeunesse ici présent euh, de redoubler d'efforts, de massifier, de sensibiliser aussi euh, ceux qui ne sont pas euh, dans le diapason, vraiment de bien voir que la seule candidature qui est unique, qui est aussi bon pour, le, pour la commune de c'est la candidature de M. Boukar Diouf, qui est le candidat de la grande coalition Wallou-Sénégal, ici dans la commune de Une coalition composée de sept partis, à savoir euh, le PDS Teki, euh, Acte et autres donc euh, se sont sont regroupés pour former une grande coalition et ils ont choisi la personne de M. Boukardiouf, sachant qu'il pèse un poids très lourd au niveau de la commune de donc je lance un appel à toute la jeunesse vraiment de se mobiliser pour le soir du 23 janvier qu'on dise vive Boukardiouf, vive Bougardiouf, maire de la commune de Voilà, merci beaucoup. Euh, man la Ndiogou Sène euh, dëkk Jolofira Séeréer 7 euh, kilomètres de commune de Ndiéniane voilà donc tey am fierté bu mag présenté wu fii si ginnaaw si kanamu jeunesse bi pour gën a dooleel Bougar le candidat de Bougar Diouf voilà donc fi may waxee itam mooy condition yu leer laa ko teg voilà donc euh, am encore bi nga xamantene peut-être la wax ni tay wo nañ jeunes commune bi yëpp ñu ñëw tassé fi pour bokk gis-gis pour bokk d'olé, pour bokk xeex pour gagner combat bi nga xamantene mo nek sen kanam voilà donc tay bo gisee tay ñu convoquer benn assemblée générale pour jeunesse bi gëna mobiliser wu pour mëna tassé pour gëna a waxtaan ci mom moy li ñu xaar le 23 janvier li ñuy xaar le 23 janvier bi nag nan lañ koy duggee ak nan lañ ci mën a amee ay résultat yu leer loolu moo waral bés bi nga xamante ne bés booboo nekk bés bi tey ñu jël ay engagement nag jël ay motuwaay yu mat sëkk fas yéene li nga xamante ne moo ñuy xaar ci kanam ñu am ci ndam bu leer nañ bi nga xamante ne kenn du ko regretter voilà boo xoolee tey ñi fi daje ñëpp ku nekk responsable nga ak fi nga jóge te tey bu fekkoon ne peut-être suñu candidat daa am ni mu mel peut-être kenn tey boo wootee kenn du la wuyu si mais tey foo tourné tey si biir commune Nguéniène am na fi ay représentants yi nga xamante ne ñoo ngi fi taxaw tey pour dooleel euh, le candidat monsieur le maire Bougar Diouf euh, ñuñ tey fi ñu taxaw nii dañoo am fierté bu rëy mel ni sax commune bi jël nañ ko ba pare parce que fi ñu teg suñu tànk dañ koo xam ñuñ donc ñuy lancer appel encore ñi nga xamante ne ñoo fi teew tey ak ñi nga xamante ne ñoo des suñu ginnaaw ñépp ñëw dooleel bokk gis-gis bokk doole bi yokk euh, tegal ko monsieur le maire Bougar Diouf euh, fi may waxee encore mooy euh, maa ngi lancé benn appel bi nga xamante ne ñu bàyyi xel ci commune bu ndaw bi ñu nekk parce que commune bu ndaw bi lañ nekk commune bi nga xamante ne 25 village la am 7 candidats c'est anormal kon man de ma part personnelle dama am vision bi nga xamante ne peut-être intérêt personnel moo tax ngay dem parce tey. manoo nekk manoo nekk di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba jël am 60 ans wala 70 ans bu nga kenn xamul la fi nga dëkk nga retourné si ne tey dama bugg a soxla mairie bu ngee Nguéniène loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suuba parce que xel nanguwul loolu nit bi ngay doon ndaw si ngay bëgg fi nga nekk mais manoo dem ba jël retraite bëgg a doon ki nga xamante ne yaa bëgg fi nga nekk loolu manul nekk donc tey monsieur Bougar Diouf am nañ fierté bu mag pour accompagner ko parce que tey li ñuy dund moo moom lay dund lii suñu métit metitam fini fanan fi fanan fanaan fa lay fanaan li ñuy naan moom lay naan te li en tout cas euh, mom qualité boo wër mu ngeeg moom qualité man di wër mu ngeeg moom looloo tax ñu gën appuyer pour gën si combat bi nga xamante la nek sama kadu bu mujj mooy maa ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp di yaakaar nyep di talal loxowaat pour ñun combat bi nga xamante ne mooy suñu combat doon le 23 janvier ñun ñëpp ñu feetu ko ci jam ak salaam mu doon mbegte bu rëy si ñu kenn bañ koo rëccu loolu mooy sama kaddu bu mujj jërë jëf